dëgg-dëgg lii moo di rajo. ausbillahi sami alim min sarri seytaani rajim bismillahi irrahmani irahim ixwati fillah wa fi rasul waxayikum bi taati wa rahmatullahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi auditeur Baol nekk fi ci Mbàkke Taba Caabi xalwa dëgg mal dëkk ba sel di Tuubaa Mbàkke leen nuyu bu baax di leen ziyaara waaye jëlal nuyoo bi asaabul fadila asiyax Muhammadul Muntaqa alsi taqa bi tuqa di ñaanal saa borom guddal fanam lool te wéral cëram ci barkeb seexul xadim waaye di nuyu ak a siyaare mbooleem xalifa seen roy yi di leen ñaanal suñu borom guddal seenu fanam lool te wéral seen cër waaye di siyaare suñu bunt ci seexul xadim sëriñ Moustapha Mbacke Mouhamad ibnu sëriñ Mbacke Mouhamed ibnu sëriñ Cheikh Mbacke Genne Fatma ibnu Cheikh Maodo Moustapha ibnu seexul xadim ñaan saa borom guddal faam loolu téeral ci ram barkeb Seexul Xadim mbokk teel àjjuma fanweeri fan ak benn ci weeru mai waaye atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent juddug Seydina sax ñu ngi fii ci Mbàkke Tabacaa bi xalwa dëgmal dëkk bu set boobu di Tuubaa ñu war a euh, waxtaane lu am solo ànd fa ak suñu gan gu màgg wi ñu war waxtaane lenn ci yàq yàqu jamono yi maanaam mujjug jamono sas dafa dal bisimilah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 waaye nag ñu jiital ci nuyoo beeg ziar bi sahibul fadila al xalifatul aama li taifatil muridiya a cheikh mohamadin il muntaqa xafizahu llah waraa di koy ñaanal fan wu gudd lool waa ànd wér ba lim yéenee liggéeyal Serigne Touba suñu may ko kattan dëbb ko xuwa ba mu defe ko nu kawee njortam barke Sëñ Tuubaa noonu dañuy nuyoo xalif généraux yi ne ci dëkk bi yëpp ak xalif général des Baye Fall sëriñ Maodo Mbène Fall di ko ñaan fan yu gudd boobu nuyu sama waa ji ma àndal muy sëriñ Fallou eh, ab sa Dieng di ko jox wàcc waayam waaye di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel rajo bi suñu waa kër gi ñu jógee ak ñëpp rek daal mhm. incha allah macha allah oustaz ci boobule leeral bu am solo boobu kon mbokk yi ngi nii képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel émission bi di yor yoru ajjuma ñu koy amee fii ci Mbàkke tabla caa bi Euh, ci rajo bu mag bi di Baol Média FM 88.5 Oustaz xam naa bala ñoo ñëw ci euh, dëgg-dëgg Maodo bi dañoo bëggoon xam bu ne Oustaz mooy kan. waaw man de xam naa <laughs> yaa ma tuddee Oustaz waaye ñun moom xam naa xëy na. <laughs> tulay misum li nga tulay mis <laughs> as élève daal soo xam ne ma léegi dañuy saako xam-xam. Mhm. waaw waaye euh, maa ngi tudd Badara Sylla mhm. dëkk fii Touba. Mhm. Umul Euh, euh, euh, juddu 1996. Mhm. nekk tout tànk mhm. yàlla def bi ñu tollee ci ati jàng suñuy waajur yóbbu ñu fële ci njaareem daara sëñ Moustapha Gueye alxuraan. Mhm. ndax ñu bari miin nañ turam. ci kër gu mag fa lañ jàngee alxuraanul karim. ba li nga xamee ne doomam ji ñuy wax sëriñ Ilman Gueye mi ngi jëm si mi ngi tox si jóge foofu di ñëw Touba ñu ànd ak moom ci moom lañu àggalee alxuraanul karim. Euh, fa lañ jàngit moo ñu jàngal euh, mabaadi yu ci euh, téere xam-xam yi mhm. muy fiq ak tasawuf ak naxwook yee ci aju daal banqaas yooyu yëpp mhm. ginnaaw bi boole ñoo boole na yoog ñeneen ñoo xam ne sàkku nañ ci ñoom xam-xam mhm. bi loolu jàllee ci leen dugg ci école bi nag ba yàlla def fa lañ amee am nañ am baccalauréat ba di àggale suñu njàng fële ci jaami'a mhm, Cheikh Ahmadou Khadim université Cheikh Ahmadou Khadim fa lañ nekk nii di àggale suñu suñu njàng mhm. ah, ci kon ci tënk defe ne kooku rek mooy noonu su xew ci boobu la leeral ba am solo boobu kon oustaz maanaam bu ñu waxee euh, ci tënk rek oustaz dañuy xam ne kon dafay nekk koo xam ne daa nekk donga daara mhm. wala ci li ëpp ci li mu ci avenir lu ci bari daf ko def ci daara ji kon oustaz maanaam dafa jàng ñaar laa nga yëpp bu ne ñaar laa nga yëpp dafa jàng daara mhm. jàng xarab te yaakaar naa neexut a tàqale mhm. oustaz sa diggante bi nga nekkee ci daara ji ak diggante bi nga nekkee ci ci ci njàngum l'école mi waaw suñ ko dee comme bu def mu xaarana mhm. comparé ko waaw dañuy wax ne mën na mën na maa wax ne nekk ci daara moom xëy na <laughs> mooy gën a moo gën a moo gën a tar nax daara gis nañ réalité daara ni mel surtout bu bu njëkkoon sax mhm. xëy na internat yi sax léegi la gën a bari waaye bu njëkk nga xam ne ñun comme façon jàng bi ma jàng mhm. daara siñ mu soogee njëriñ nga xam ne bu la sa waajur yóbbee ca daara ja mhm. la joxee siñ bi day mel ne xaw na caa pare danaan ko say ay yaxam laa laaj daanaka loolu la wax eh, nga xam ne njàng ma day nekk eh, lu metti metti da nga koy boole ak yalwaan yi boole ko ñu la Euh, jëwriñ ji lay jàngal joo xam ne njàng mi mën naa a tar mhm, <laughs> ci mën naa xaw a tar ci benn côté mhm. nga xam ne loolu sax day poussé gone yu bare bare ñu jéem a daw ak def yu mel noonu mhm. waaw waaye daal ci tënk njàngum daara moom moo gën a metti njàngum école ndax école moom daanaka lu ci bari da ngay xaw a sa sa coobare ngay xaw a jànge mën ngaa bañ am yenn ay tënk-tënk yu bari waaye daara nag doo moom sa bopp dañ lay moom dañ lay yilif sëñ bi moo lay yilif sa lépp sëñ bee yor euh, te alxuraan dañ sëriñ bi da la ciy bu baax a baax ngir nga mokkal ko mhm. da ngay heure yi ñuy jàng mhm. fajar gi quatre heures lañ la ñuy yeewu mhm. di jàng ba euh, sept heures ñu wàcc euh, bu ñu jarwaanee huit heures la ñuy dugg si waat bu fekkee ñun suñu daara huit heures maximum huit heures trente da nga ñëw jàngaat ba onze heures nga wàcc ba noppee da bind diggante parce que diggante 11h ba ba 13h moom ci bind ngay nekk boo bindee ba pare. Mhm. da ngay dem yalwaani añ. ndax mhm. kenn du loo lekk yaa wutal sa bopp loo lekk. Mhm, ci daara ci ci daara ci. da nga dem yalwaani añ. boo yalwaanee añ 2h40 euh, wala 50 moom ci daara ji lay fekk nga indi yalwaan. nga wut loo lekk loo dugal sa pare waaye wutaale loo xam ne. ji euh, daara yi ne ci daara ji nga koy jox. maanaam euh, daara yi dafay am ay sas ak yu noonu. non du xeetu sas sax waaye. mën a waaye daal en tout cas mag ñi comme que ñoom ñoo nekk ci daara ji di seere daara ji mhm. ndax jëwriñ ji mooy di seere daara ji mhm. te xëy na sëñ bi mënu koo gàddu li muy dunde mhm. kon donga yi la seen biir euh, diggu potu ceeb matin fukki donga masalan a dundal magi daara jafa nekk ñoo leen di saytu di saytu donga yi ak di leen toppatoo ci seenum njàng rawat na bu sëñ bi niwut kon loolu yàlla nañu defal leen ko kon noonu la demoon waaye sax nekkutoon sas moom waaw waaye bu ñëwee ci côté école mhm. waaye ci ci daara ba tey gis nga daara defaat ci yow beneen formation boo xam ne formation boobu mhm. mën naa ko tudde formation militaire mhm. formation boobu mënoo koo fekkaat faneen ci daara ko mën a amee parce que daara dana toj sa xol ba noppi dañ la def nit maam insaaniya day nekk ci yow daara da nga fa jëlee xam-xam daara da nga fa jëlee ay teggin daara boo fa jógee dana tax nga mën a jëflante ku mu mën a doon ci àdduna te it li lay mën a perturbé du bari daal waaw ah, loolu kon loolu li ñu bénéficié woo ci daara mhm. Mhm. ba day tax boo fa jógee ba ñëw ci école nag mhm. ak condition yoo fa a fekk da que sa fondement moo dëgër da nga am formation bu dëgër boo xam ne fanañ foo dem ci àdduna da fay nekk njàngum école bari ci école yi huit la ñuy dugg di bari ci bari ci école yi la ñuy wàcc lu ci bari ci école xam it daanaka duñ jàng ngoon xam nga xëy na eh, matière bu fekkee am na côté bi ci tar rek matière yi xay na léeg-léeg mën nay bari man naa mat ay ba 15 ba ay 15 matières yu mel noonu te yëpp da koy war a jàng mhm. war koo war koo maîtriser mhm. bu examen jotee war ko def mhm. war ci am ay note yu baax waaw boo bëggee kii waaw <laughs> macha allah Oustaz Badara Sylla ci yooyu la leeral xam naa Oustaz bala ñoo ñëw ci thème bi eh, danañ taxaw tuuti ci njàngum école mi ak daara mi waaye mbokk yi képp ko xam ne bëgg ñoo dab da def 88 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 Ah. sam njàngam école. noo ko dooree ak ban élève nga woon ci ci biir classe bi. waaw sama njàngam école nag xam naa. Mhm. ginnaaw bu ma jaaree ci majalis bi ma wax ak ci alxuraan yi. Mhm. daa rek man bi may duggee école maa ngi duggee euh, Sadis. ibtidaa yi CM2 laa duggee nga xam ne classe classe d'excellence la classe bu métti laa duggee maasàllaa waaye yàlla dafa ñu taw fii xam bi ñu duggee ndeysaan góorgóorlu ni ma ko waxee léegi rek ku jigéen ci daara li lay te mën naa bañu bari sax année boobu classe ba ma newoon maa fa jëloon deuxième ci année boobu année boobu première compo yi maa jëloon deuxième dernière compo yi maa jëloon ci ci ci ci tënk ci takk ban année la fekkee jàppale la waa année scolaire 2016 2017. 2016 2017 année scolaire boobu la. ça c'est yàggul yàggul dara. parce que daa mel ne waaw de xam naa ne day na waar aywa bisimilah. waa ban élève laa woon ci biir classe bi. Uh-huh. Ah, ah, boo xam ne <laughs> wax dëgg yàlla. Uh-huh. jox cër euh, asaati sa yi ne ci kii yëpp professeurs yëpp jox leen cër. Uh-huh. di def euh, lañu ñu war ca école ba. xam la ñu fi indi ñu nekk ca rek di ko def. te di jàng si heure di wàcc heure. di bañ absence. di bañ absenté. respecté heure yi ñu jàng. waajibaat yi am ci école bi yëpp mhm. bu devoir amee ñu def ñu ñu dem defi ji ko def mhm. suñu kem kattan mhm. bu examen jotee ñu def ko def suñ suñu kem kattan euh, élèves yéen fa fekkee ñëpp nag ñu jox ñu jàpp yéen ña maasee ñun ñu jàpp leen comme suñu bopp cër bi ñu jox suñ bopp lañ leen jox ña ñu fare mag ñu jox leen euh, cëru mag ña ñu gën a fare euh, ndaw ñu yërëm leen noonu rek lañ doon dundee ak ñoom amuñu fa daal benn jafe-jafe la wax dëgg yàlla mhm. école ba sax wax dëgg yàlla ba léegi euh, ndeysaan suñ jëmu ju xew ji ñoom dañuy ndeysaan dañu am fi yaata ci ñun daal mhm. dañuy ci école boobale école boobale école Cheikh Mahamadou Bassir Mbacké mhm. suñ Cheikh Moussa Mountakha mook moom maa ngi nuyu directeur ba Mouhamadoul Matar Seck nekk ku baax école Cheikh Modou Bassir bi école Cheikh Modou Bassir mi ngi nekk Touba Foras wetu marché ma Binta Serigne Cheikh Mbacké moom Cheikh Modou Mountakha moo moom di jàmbaar di gëstukat di borom xam-xam di bindkat nekk ku bëgg xam-xam loolu wax dëgg yàlla suñ Cheikh moom moom école bi bi nekk école bu ràññeeku ci ci dëkk bi di mm. génnee ay kànga ay kàngam nag wax dëgg yàlla waaw euh, kon maa ngi nuyu directeur ba di mm-hmm. nuyu Baye Dieye ak monsieur Lo nekk ca école ba yëpp di leen jox seen wàccuwaay mm-hmm. kon daal ci tënk yaakaar naa école ba daal noonu lañ fa nekk woon noonu ngeen mm-hmm. ah, ci boobu la leeral ba am solo boobu maanaam oustaz kon mi gane àdduna waaye jaar ci ay daara wala jaati daara laataa mu ñëw ci école waaye mu ngi ñëw école ci tënk 2015 ba 2016 commencé classe bi ñuy wax cm xam naa loolu moom nekk na lu jafe ndax ñëw mhm. e waaye mi ngi kon nem njàngam ba ci université bu mag bi muy jaamiatu Seexul Xadim kon kooku mooy sunu ganu tey gi waaye oustaz xam naa day ñëw nag ci dëgg-dëgg euh, thème bi mhm. aha bu fekkee mën nga ñoo mën nga ñoo faram-fàcceel thème bi lan la ñu war a waxtaane tey waaw day mel thème bi ñu tànnoon mooy waxtaanee. Mhm. axiru zaman. Mhm. Ah, mujjig jamono. Mhm. muy thème bu amam solo nag boo xam ne. toujours day nekk thème de ndax axiru zaman moom yaakaar naa <laughs> jamono joo xam ne. Eh, ci nit ñi xam nañ ne ñoo ngi ci eh, jamono jooju. mooy ñoo ngi dund jamono jooju. parce que nag eh, li koy firndeel. mandarga yi wane loolu moo moo xaw a bari. moo xaw bari. kon ñu ci axiru zaman axiru zaman nag baatu. baatu arab la mhm. axir ni ñu ko xamee mooy lu mujj mhm. zamaan mooy mooy jamono mhm. ñu boole ko def ko mudaaf ak mudaaf ilayhi ne axiru zaman muy mujj jamono wolof euh, wolof ma koy wax mujj jamono tubaab di ko wax fin du monde <laughs> fin du monde <laughs> waaw fin du monde nag lu tax ñu tuddee ko noonu parce dafa bari ay melokaan yu feeñ yoo xam ne miinuñu ko woon wala bu fekkee amoon na bu njëkkit léegi la gën a takkarnaase léegi la gën a bari ci yàqute jikko nit ñi wan ginu wan ginu wan ginnaaw yàlla mhm. ak gi ginu dëgmal adduna mhm. ak topp ki nga xam ne lu bari ci nit ñi dañ ko topp seen bakkan mhm. maam topp adduna rek ak fàtte gi nga xam ne moom lañu ñu fàtte dee ak yu mel noonu aaxiru samaan bu ñu ci ñëwee mën nañoo ba tey sukkandiku ci benn xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy tuddee xadis jibril amar ibnu xataab daa koy nettali eh, xadis bu xaw a gudd la waaye mën nañu koo xëy na xadis bi tudd na tudd na islam tudd na ihsaan tudd na iman mhm. tudd na mujjig jamono mhm. ama asraatu saa mandargay eh, bis pénc te mooy mujjig jamono mhm. eh, an Umar ibn Xataab radiyallahu anhu qaal baynama nahnu juluusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin ittala'a alayna rajulun shadidu bayaadi thiyaab shadidu sawaadi sha'r laa yura alayhi atharu safar wala yaarifu minha ahad xata jalasa ila annabi sallallahu alayhi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadaxa kaffayhi ala faqisayhi wa qaala ya muhammad axbirni an islam qaal al islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima salata wa tutiya zakata wa tasuma ramadana wa taxujja albayta in istataata ilayhi sabila qaala sadaqta fa ajibna lahu yasalu wa yasadiqu nee na jibril dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nag bi mu ñëwee mi ngi sol yére yu weex tàll benn waaye sax la wax ndax Omar bi mu koy nettali ñoom xamagun day mel mhm. ne waaje bi muy digg xamagun ko mhm. xamagun jëmu ci mhm. nee na karo gi daa ñuul kukk sol yére yu weex tàll bi mu ñëwee daal toog ci wetu yendu salaay salaam daal di banque ñaari bati woomam jël ñaari bati woomam salaay salaam jël ñaari yi ñaari loxoom yi daa koy teg ci ay ci ay luppam daal di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xibaar ma mooy islaam yéen bi daa koy xibaar. Mhm. te islam bu ko waxee. Mhm. Euh, euh, islam ak ixsaan ak euh, ak iman. Mhm. moom la ñu tuddee axsaamu diin. ñett yooyu. mu daa koy mu ne ko lislaam daal mooy nga tudd ñaar baat seer yi. waaye gëm ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko yónni. naka noonu ngay taxawal julli di joxe asaka di war weeru koor. aj màkka boo ko mënee. daa danga waaye nee na Omar nee Jibril. heure bu laajee yonent bi ko yonent bi tontee danaan ko danaan ko wax nga dëgg sadaqta mm-hmm, sadaqta mm-hmm. Omar nee na loolu moom dañoo yéem lool mm-hmm. kon loolu ko njëkk mu tontu ko lool payam ñaara bi mu laaj ko iman yonent bi ne ko an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari xayrihi wa sharrihi mooy daal nga gëm yàlla gëm bis penc bi gëm téere yi gëm dogal bi gëm yonent yi gëm yawmal ama Jibril waxaat ko loolu ne ko dëggal dëggal na xam naa oustaz ñu taxaw foofu gëm yonent yi dafa mel ne euh, ci sama dégg-dégg ne gëm yonent yi kon nekk ci euh, farata wala daa bokk ci euh, iman wala islam nga gëm yonent yi ñoom ñëpp waa ci arkaanu iman la bokk arkaanu iman la bokk mhm. arkaanu iman juróom benn la mooy mhm. yi ma lim nii mhm. gëm yàlla gëm yonent yi gëm malaaka yi gëm téere yi gëm bis penc gëm dogal bi bu neexee ak bu loolu dafa bokk ci arkaan iman loolu jullit bi da ko a fas da ko war a gëm mhm. Mhm. yonent nag dafa am ci ñoo xam ne mhm. eh, lu mel ne 25 prophètes yi nga xam ne ñëw nañ ci alxuraan dañ leen a war a gëm xam seeni tur ku ci mel ne Eh, bari nañ ku mel ne eh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Moussa a Ilyas Zakariya Yusuf maa ñooñu 25 uh-huh. prophètes yooyu uh-huh. bari nañ alxuraan ñoom ñëpp dañoo tudd uh-huh. ñooñu dañ leen a war a gëm jullit bi da koo war a gëm waaye xam seeni tur am na si ñeneen ci yonent yi nag ñoo xam ne dañ leen a gëm gëm ak ñu tuddee mbabastal mooy jumlatam sartuñ ci jullit bi mu xam tur yooyu kon yellu ci benn jullit muy weddi ab yonent mu weddi yonent mm-hmm. bu bu wéree moom ne diw ab yonent la woon rek mm-hmm. wala kon wala am nabi la kon solo la mm-hmm. euh, da da a war a gëm kon point boobu <laughs> loolu ñu fi leeral mu ñëw ci iman mu ci mu laaj ko nag saa euh, mu ñëw ci ihsaan ihsaan yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka mooy nga yàlla ba mel ne yaa ngi jàmm ak moom bu la wéree na janoo ak yàlla nga xam ne moom mi ngi janoo yow ah mi ngi lay gis mm-hmm. yaa ngi dégg mu ne ko loo may jibril ne ko wax nga dëgg mm-hmm. mu laaj ko nag point bi nga xam ne sax moo tax may wax mm-hmm. mooy euh, saa amarat saa mooy mandargay bis pénc ci tam mooy axiru zaman mu laaj ko loolu laa ne ko fa axbir ni ani saa qaal salaay salaam ne ko mal masul anha bi alama min asail maanaam man mii nga koy laaj day euh, yaa day mel ne ki ma ki maanaam man mi man mi ma koy laaj tëriw tëriw ma ko ci maanaam day moom sax fekkee am na xam moom moo ma koy gën a xam mm-hmm. Mm-hmm. waaw ki ñuy laaj mm-hmm. ki koy laaj moo ko gën a xam da ko bëgg wax ne ko yow a léegi eh, jibril na ko léegi léegi wax ma ci ay mandarga yoo xam ne suñu ko gisee ñu xam ne kat ñu ngi ci mujj jamono yéen bi sallallahu alayhi wasallam da ko cee tuddal ñaari mandarga bokk na ca an talidal amatu rabbataha mooy benn bu njëkk bi maanaam an talidal amatu rabbataha bi ñu ko tafsiree ci gën koo yaatal maam day mel ne bu demee ba lawoon woon bi mhm. bu demee ba nga xam ne euh, bu njëkk mhm. sang la xam ak jaam masalan mhm. bu demee ba xam ne léegi jaam bi day mujj yilif sang bi hmm? loolu jamono wëlbatiku na te li ñu xamoon mooy sang yilif jaam bu demee ba euh, nit ki bu juree doomam doom ji moo koy yilif hmm? kon kat ñu ngi ci mujj jamono loolu nag wuti woon naag la xamoon démb ndax li nga xamoon mooy bu fekkee ne hmm, nit ki dafa jur uh, doom mhm. say say waajur ñoo yor say responsabilité yëpp maanaam ñooy sa kilifteef ci seen loxo lay tegu mhm. daanaka yow sañ-sañ bi nga am ci ñoom du bari ñoo mhm. ñoo jëlif sa yëpp léegi nag jamono daa wëlbatiku ba nga xam ne li ko waral nag mën naa bari uh, mën naa nekk wàllum koom-koom mën naa nekk wàllum daraja mën naa nekk yu mel noonu waaye na dem ba nga xam ne Oustaz xam naa image bi ndax émission bi day jàll direct pour xarakaat yooyu aywa tafadal <laughs> léegi bu nee ba nga xam ne waajur wi sax mhm. maanaam dafa ragal doom ji mhm. ngir wax ko dëgg mhm. wala euh, mu daw ay responsabilité am ci moom mu daw ay responsabilité am ci moom yaa ngi dégg te te li waroon am mooy waajur yi mooy mooy yilif doom ji lu mu ko digal da ko war a def lu mu ko tere da ko war a bàyyi bu ñu ba gis contraire bi nag sens contraire bi mooy nag léegi ñi ngi ci ñi ngi ci mujj jamono loolu gis nañ na léegi bari na ci jamono lool gis koo xam ne masalan yàlla mën na koo mën a gan mu am xaw a tuuti xéewal donte moo gën a néew ay at ci famille bi sax mhm. moom la jiital moom la jox cër ba day mel ne sax euh, euh, kilif baatu kër kër gi ci loxoom lay nekk mhm. loolu nag mandarga la wax ne yéen saa sam na ko mooy benn bi mhm. alxorat a rexa asaay yatatawaluna fil bunyan bu ñu nee ba nga xam ne ña dëkkoon ca kaw ga nga xam ne daanaka sax yére yu ñu sol dawuñu ko am dañ daan rafle nekk ñu daan fanda yu sax daal la wuñu sol dawuñu ko am yaa ngi dégg nekk ay sàmmkati gàtt bu nee ba ñooñu léegi ñoo nekk ci taax yi dëkk yu mag yi di ëpplante adduna di ëpplante ci ay immeuble ay R plus 7 R plus 8 R yu mel noonu yéen saa yi nee na kon nañ xam ne ñu ci mujj ndax xat lañ xamoon mooy ñooñu lañ leen xamee woon mooy nekk ca kaw ga nekk di sàmm ak di eh, yar seenu jur ak di bay ak yu mel noonu mhm. léegi nag lii ngi mu wax nii da koy mën a gis ci waaqan bi ci ci réalité bi da nga koy gis nii mhm. masalan da nga gis ne boo demee fu mel na soowu Dakar mhm. ñu ëpp ci ña fa nekk surtout ñu yor yenn ndomba tànk yi ñii ñuy ay milliardaires ñoom ñëpp koo ci dàqoon ñu bari ci soonu Dakar dëkkuñ koo ci dàqoon rek ñibbi wiri gara wiri ngara wala mu ñibbi Casamance mhm. wala mu ñibbi euh, <laughs> Louga mhm. wala mu ñibbi Gosaas mhm. xam nga ah Gosaas koo ci daax ku ne <laughs> moo Gosaas yow it nag <laughs> daa teew sama xel rek ma kii ayo mooy ñoom ñëpp koo ci dàq rek maanaam am na village boo xam ne fa lay nga xam ne si nu cosaan ay bay lañ xamee woon suñu président bi ñu ngi nii Bassirou Diomaye Faye mhm. moom eh, njaga ñaaw <laughs> <laughs> njaga ñaaw baykat la moom macha allah oustaz xam naa mbokk yi képp ko xam ne bëgg ñoo daal da ngay def 88 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 88 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 aha oustaz nee na bu loolu ba demee bañ gis mandarga yooyu mhm. nañu xam ne adduna kat léegi mu tukki mhm. adduna li des ci àdduna tukki bëreetul mhm. ba ca des kon loolu mat nay bàyyi xel baax a baax mhm. ñu sóoraale euh, àdduna xam ne àdduna du saxwaay mhm. te dëkk dëkkuwaay te wax dëgg yàlla dee mbir la moo xam ne euh, bàyyiwuñ ko xel waaye mën naa dab ku nekk dëgg la te kum yàq ci yow rek euh, dana dog say mébét te amul kenn kuy faatu loolu ne da nga ay mébét yu bare bari kon nañu bàyyi xel suñu borom ta xam ne jamono ji jamono ji lëndëm la joo xam ne Euh, jamono la joo xam ne saytaane not na a euh, yëpp mhm. kon daal war nañoo gën a jugaat suñu bopp gën a takkaat euh, laxasaay baax gën a dëgmal yàlla mhm. am na beneen xaalis boo xamante ne naa ci ñëw yonent bi salaay salaam bi ci mujj jamono boobu yàgg na ñi ci lan mhm. ñi ngi ci fi mu ne nii 1445 junniy at ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom ak ñeent fukk ak juróom yonent bi salaay salaam dafa waxoon ne ana wa saa ka haatayni daal di ka haatayni asbu'ayni daal di yëkkati ñaari baaraam yi maam baaraam bii gën a gudd ci baaraam yi mhm. ak bii mu dendal nii mhm. ni mu ko sute diggante soo su mu ko sute mhm. mu ne bi ñu ma yónnee ak bi saari taxaw mooy bi sénj bi am euh, distance bi noonu lay loolu nag ñun ñi nga xam ne euh, mu jarab mooy bëti bëti kase lañ nag uh-huh. loolu day day xaw a xormu ci ñun nag naan waaw xoolal boobaag léegi ni mu yàgg te adduna tukkeeku xam nga boroom xam-xam dafa am am na ci ñoo xam ne amuñu mhm. distance mhm. masaafa amul ci seen ci ci ñoom mhm. ñun doomu aadama ñoo xam zamaan ak makaan xam ne mbir mi fii la tàmbalee fii la yem di am distance xam ay at naan ñu ci 1900 nangam wala wala maam di natt mbiri ci at daal di xayma mbiri ci ay at ñoom lépp daa teewandoo seen kanam suñ borom noonu la mel suñ borom lépp daa teewandoo fi kanamam lépp daa teewandoo fi kanamam moo tax su misaalee saaxa noonu rek comme diggante espace ñaari baaraam yi Mhm. kon xadis bu wér da te luñ te luñ war a mën a gëm la mhm. loolu day day firndeel ne mhm. bis ji léegi mu taxaw joxewaat na ci mandarga yu bari bari dama doon tënk yooyu rek bëgg naa nag euh, ci mujj ki émission bi ñu jéem a leeral leeralaale tuuti ci euh, bayit Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne indi ko ci xas dëgg googu di xas dëgg xas zaman incha allah daañu ñëw ci kàttanu yàlla waaw incha allah macha allah ci boobu leen leeral bu am solo boobu kon mbokk yi képp xam ne bëgg mbaa 88 628 81 08 88 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 ñu ngi fii ci Mbàkke tabla caabi waaye xalu dëgg ma dëgg sel bu Touba ñu ànd ak suñu gan gi muy Oustaz Badara Sylla waaye moo ñu waxtaanal lu am solo muy mujj jamono bu ne mujj jamono nag bokk na ci ay yàqu-yàqu jamono yi nga xam ne dafa bari lool ci jamono ji xam naa Oustaz dana ci gën a ci gën a leeral ci kàttan yàlla ndax man tey ji moom damaa ñoo nekk as donga ngir taataan bu fekkee mën nga ñëw ci mandarga yi nga xam ne ci jam euh, ci mandarga jamono la maanaam nga mën ko leeral bu baax a baax euh, bu bëggoon teg baaraam ne yi mooy mandarga yoo xam ne bu ñu gisee xam ne mooy mujj jamono yan mandarga lay doon. waaw yooyu bokk na ci. Mm-hmm. yàqute gi ni mu tasaaroo. Mm-hmm. mooy yàlla gi ni nga xamee ne euh, noonu la bare. Mm-hmm. nga xam ne léegi dafa mel ne nit ñi sax dañoo jëloon la nga xam ne moo baaxoon. lépp ñu wëlbati ko mhm. xam ne léegi la baaxoon day mel léegi moo def safaan mhm. léegi sax da ngay am jafe-jafe ci bu fekkee da nga bëgg a dund diine ni ko bëgg a dundee da mhm. nga bëgg a dundee diine nga dundee ko noonu da ngay am jafe yooyu dund ko day mel ne sax société bi da lay xaw a beddi loolu nag li ko indi mooy yàquteeg jamono gi nga xam dafa dafa tasaaroo da ngay gis ne mooy yàlla gi daa bari lool façon njaalo gi sàcc yi affaire criminel yi rey nit yi euh, Euh, jëw yi mhm. ràmbaaj yi mhm. waxal nit lu la wóorut mhm. nifaaq naafiq maam bari na mboolem euh, si melokaan yi nga xam ne suñ borom da koo bañ ci jullit bi te da koy wattandikuloo jullit bi yooyu yëpp dañoo dem ba gis ne melokaan yu tasaaroo la yoo xam ne ñu ngi koy gis ci société bi moo tax am na euh, ba ci sax boroom xam-xam yi ak xuddaat yi ak fuqahaa yi danga gis ne léeg am na ñoo xam ne ñoom duñ mucc ci yooyu Eh, dafa am xadis boo xam ne abi Hurayra da ko nekk. sas bal ñoo jàll xam naa. yooyu xudaat yooyu ngay wax xam naa sama classe gi ñoo jàngut. waaw waaw eh, bëgg nañ ñu taxaw a a baax. mooy mooy siis yi. yooyu wala. <laughs> Ah, ah, jàngut maa xalaat ñooy ñooy tëralal gars yi téere fiq yi. aywa aywa ñu <laughs> leen jàngal ñoom Ibnu Asir ak yooyu. waaw am na yàqu gi daa àgg foo xam ne. Mhm. day mbirum xol mhm. nga xam ne xam nga doomu aadama mhm. xam nga nit ñi mazhar maanaam kaw gi rek la ñuy gis nii mhm. lu bari ci nit ñi fi ñuy juumee mooy dañuy suuse nit ci ci kaw gi mhm. ci ni muy soloo wala ci ni muy waxee ci kaw eh, nga gis koo xam ne ndeysaan day sol dara ju rëy wala mu sol <laughs> benn baylaat ko mel ne man benn baylaat bu rëy <laughs> na waar waaye yu mel noonu nag moo tax yéen saa eh, eh, ci xadis boo xam ne dafa xoon ne yàqute dana àgg ba foofu bu wax ne yakunu fi àqiri samaan mhm. umara wa zalama mhm. dañu gis ci àqiri ay njiit yoo xam ne mhm. njiit la ñu doon yoo xam ne duñ jub njiit yoo xam ne ay tooñkat la ñuy doon jalgat rek la fiy nekk bu nee njiit xam naa directeur yi président yi <laughs> ñoom ñëpp njiit ngi ci biir ba ci imaam yi <laughs> sëñ Fallou yow de yaay yaay yaay sama njiit déglu oustaz bismillah <laughs> ñoom ñëpp képp koo xam ne benn masuulee mi ngi sa loxo rek mhm. jiite nga donte li nga donte ñi nga jiite ñaari personne la ñaari nit lañ ndax yém saa waxoon ne mhm. njiit mhm. sax am na ku ñu war a teg ci kanam dëgg la mu nekk imam bi ma mu jiite leen imam bi ñu ko waxee mooy njiit rek kon président bi ma ngi ci biir président bi moo jiite Sénégal bi yëpp kon responsabilité réew mi ci loxoom lay lay tegu kon war naa war naa xam masuulee bi tegu ci loxoom premier ministre bi. Mhm. moo jiite ministère yëpp. Mhm. kon responsabilité ministère yëpp ci loxoom lay tegu. Mhm. député bi nekk assemblée. askan wi dañ koo fal. waaw ah, foofu moom xam naa bëgg naa ñu taxaw fi. xam nga dañ ko xaw a méngale rek ak yàlla. Ah, waaw incha allah député député bi dafa dem sàkku baatu askan wi. ba askan wi fal ko daa ko yóbbu foofa. kon moom war naa jubal ci euh, teg gan ko fa teg. xam ne moom tegu fa boppam. waaye dafa am ñoo ko fa teg. te ñoo ko fay teg maam lu mu man subaa ngoon guddeeg bëccëg bi ngi xëy di dagaan baat asanu gi ñu teg fa mhm. kon dafa war a geesu ginnaaw ci euh, ñi nga xam ne ñoo ko fa rek mhm. moo te mooy lan mooy mu jubal ci responsabilité bi ñu ko jox masuuliye bi mu wax mhm. député yeeg ñëpp bari nañ euh, ak képp ko wax yëpp ku jiite société ak euh, maam daal yaat na yaat na nit koo nit képp koo képp ba ci borom kër gi kër gi yëpp ci loxoom lay mhm. ma àggalee xadis bi mu tekkee kon rek uh-huh. euh, dafa da caa dafa wax ne umaraaw zalama uh-huh. wa wuzaraaw fasaxa wa qudaaw xawana uh-huh. wa fuqahaaw fa man adraka minkum dalika zaman fala yakunana lahum katiban wala arifan wala wala surtiyan mu ne kon fuqahaaw yi mooy ñii di jàngale fiq ak euh, borom xam-xam yi ak juge yi ak ministres yi ñi nga xam ne ay kàccoor lañ nekk ay yàqkat nekk ñoo xam ne ay tooñkat lañ ñu ne képp koo xam ne gis nga leen ci melokaan yooyu bu leen topp ci seen melokaan yi mhm. maam bu leen roy bu leen roy bu leen sax jàppale la ñuy def mhm. kon maanaam nekk euh, euh, mhm. xam-xam ne bu ne borom xam mooy comme ñuy jàngale fiq ak ak ak euh, classe gi nga xam ne jàngalekat lan man nag damay jaay yi ñooñu bu fekkee dañoo nekk ci jubal bu leen ci roy loolu da jubal ci dëngal ci dëngal bu leen ci roy waruñu leen cee roy waruñu cee roy gis nga loolu nit ñi dañ ciy xaw a par exemple da ngay dégg ku naan da dégg da nga gis ko def dara loo xam ne loo xaw a juunu la nga xaw ko ko aaya wala nga ne ko lii kat eh, jaaduwut mhm. mu lay gëmloo ne man kat gis naa ko ci kilifa diw kilifa diw mu koy mhm. mu koy def mhm. wala fekk naa ko gis naa non yàlla nañ ma jégal ci wax ji dañ koy dañ koy kii rek mhm. euh, lu fi am la daal la gis mhm. gis nañ ko ci kër kër kër kilifa diw mhm. soxnas diw wala doomi diw moo koy def loolu tekkiwul ne kilifa diw di ko def euh, soxnas diw ko def wala jëmmi kilifa gi di ko def wala ay doomam di ko def loolu tekkiwul ne daa dagal wala daa baax maanaam kon euh, xam naa sëñ Fallou bi nga xam ne ab jàngalekatu daara la waaye moom foo ko fekk rek mu ngi topp màggat yeeg ay deeg sukka yi man <laughs> man mi nga xam ne maanaam damay jaay waruma ko cee Ah, léegi sëñ Fallou moom diggante loolu maanaam ndax euh, damay dégg chaque jour ñu naan borom xam-xam bu bu bu bu bu kàccoor. Mhm. comme ku ci mel ne sama waa ji. Mhm. Euh, loolu moom nuñ ci mën a nuñ ko mën a attee waaye ginnaaw boobu képp wax ne bëgg ñor bay def 88 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 88 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 aha oustaz. waaw ñooñu kenn war leen a roy ci li ñuy def. Mhm. nit ñi nag ndeysaan ñoo xaw a desee ràññee waaye mhm. même nit ki bu nekkee maam lu baax ak lu ban xaw naa ne xàmmee doonte mhm. jàngu mhm. nit ki ni nga xàmmee sa ndeyjoor bii ak sa càmmoñ bii xam lu baax ci yow nga di ko def xam li nga xam ne safaan la ci ku nekk ci mbirum àdduna rek da ngay gis ne li nga xam ne xam nga ne lii sa njëriñ la ci àdduna say business yi ngay lijjanti say liggéey yi ngay def ngir di ci gagné di ci gagné benn benn benn salaire lépp da nga li nga xam ne safaan ci yow nga xam ne lii boo ko defee da lay yàqal sab liggéey mhm. wala mën na laa gaarankoor ci àdduna da nga koy mhm. noonu mu mel ci àdduna rek noonu la mel ci mbirum yàlla kon day mel ne lu baax ak lu bon moom lu neex a xamee na mhm. yén saa dafa waxoon ne alxaraam bayinun wal alxalaal baynun wal xaraam baynun wa baynuhuma umurun mushtabihat laa yaxlamuha kasiirun mina naas dafa xool ne lu dagan moom lu leer nañ la mi ngi nii ñëpp xam nañ lii dafa dagan waaye lu xaraam it ñëpp dafa leer nañ ñëpp xam nañ daa xaraam mhm. daanaka kay li ñuy jaaxal kay mooy li lënt li ne ci diggante bi mhm. nga xam ne xamuñ ne dañ koy dañ koy dugal fee wala dañ koy dugal fee dañ koy dugal dañ koy boole ci xalaal yi wala dañ koy boole ci xaraam yi yonent bi daan ne waaye yooyu nag na ngeen ko maytu mhm. na ngeen ko maytu ndax buñu nee masalan buñu nee géej gi kat ku fi dugg mën ngaa law kon bul jegee bul jegee ci tefes ga bul bul ne rek Mm-hmm. su ma taxawee ci tefes ga du ma laab ndax tefes gi ndox ma fa nekk bëri wala nangam mm-hmm. bul teg sa tàng sax ci tefes ga mm-hmm. na maytu tefes gi kon suba xëy sax nañ ko maytu moo moo gën a wóor kon akul samaan mi ngi noonu melokaani damay bañ a détaillé de turu ba su ma ndax yi may wax yëpp mi ngi waat ci akul samaan bi Sëriñ Tuubaa jàngale ci ci téere bi te mhm. moom la moom laa bëgg a tëjee insha allah mhm. waaye bokk na ci mandarga yi mhm. ama dafa am ñaari dafa am ñaari mandarga mandarga yu ndaw ak yu mag day mel ni nag ci mandarga yu ndaw yi lañ nekk am na mandarga yu mag loolu alxuraan jàng na ko lu mel ne xuruuj yaa jooju wamaa jooju yaa jooju wamaa jooja yooyu yooyu mooy lan moom waaw <laughs> sax li muy wax nii <laughs> macha allah kon 88 la 619 05 ba 88 628 81 08 88 628 19 05 ba 88 628 81 08 Abdou Hakim Ka la grand célibataire maa ngi lay ziar Oustaz Tafadal xuruj yaa juuja maa juuja waxaan ne inna yaa juuja maa juuja mufsidun fil ard mhm. boo demee surat lan biyaa maa isa fatixat yaa juuj wa maa juuj mhm. yaa juuja maa juuja ñoom ay gaay yoo xam ne yonent bi salaay mu nee na mujj jamono mhm. dañuy feeñ seen mbir nag seen mission dara lu may yàq jamono ji rek ñoom ñoom ñooñu ñoom yaa jooja ak maa jooja waaw ñaar ñooñu yàq yàq jamono ji yàq adduna rek foofu nag moom day fekk adduna moom gën takkarnaase moom yooyu dafa bokk ci mandarga yu mag yi moom wala Isa wala ñëwug Sayidna Isa mooy ba war a jubbante yëf yi wala masiixu dajjaal ñëw gu mu ñëw gi ñëw gi mu a ñëw ak ak benn xuruju benn da benn dabba mooy benn bàyyi ma boo xam ne dafa war ci kaw suuf nga xam ne moom balaa feeñ day fekk ñu nekk ci mujj jamono nag yëpp ci yëpp ci mujj jamono lay xew ci ñëw gi nga da koy ñëwaat ak masiixu dajjaal waaw kay waaw ak ñëw gi mu ñëwaat maam mm, buñ ko doon tënk lan mooy sabab bi maam lan moo lan moo tax mu ñëwaat waaw Isa mhm. borom xam-xam dañuy wax ne ba ci mhm. alquran wax na ko Isa mhm. dañ koy yëkkati dañ koy yëkkati yarfa'ullah eh, maanaam mo Isa faatuwul faatuwul dañ koy yëkkati ah, ah. si eh, chrétiens yi dañoo xaw a juum ci côté boobu dañoo defee ne ñoom dañoo faatu Sayyidina Isa faatuñu ko kooku ñu téye woon di ko di ko def loolu ñu ko def daa koy salbu pendre ko mhm. kooku du Isa de Seydina Isa suñu borom moo jël kenn ci ñoom mhm. am nañu wax ne seen kilifa la mhm. nuróo la ko ak melokaanu Seydina Isa ñu jàpp kooku def ko lañ koy def yahudi yahudi ñu def ko Seydina Isa waaye euh, ñu def ko waaja waaye kon loolu mu jóg jamono moom na day dekk waaye xëy na am na beneen mu nekk di fa dund uh-huh, uh-huh. ca nam soobee yàlla bu demee ba yàlla soxlawaat mu ñëwaat ci àdduna dana wàccaat bu ñëwee dana corriger chrétiens yi ci jëf ji ñuy jëf di ko askan li Isa ñi nga xam ne bokkuñu ak ñoom ñi nga xam ne bokkuñu ak ñoom diine masha ñi nga xam ne ñoom Seydina Isa mhm. dafa waxoon ne sama ginnaaw Muhammad dana ñëw mhm. Ahmad mhm. moom Seydina ma moo waxoon loolu da ko waxoon da ko waxoon loolu Ahmad dana ñëw wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu Ahmad wa ma jaa'ahum bil bayinat xaalu haza sihrun gaa yi moom bi ñëwee dañ ne gis nga lii ak njabar la nanga nam waaye waxoon na leen ahmad dana ñëw ahmad mooy muhammad sallallahu wa sallam bu ñëwee rek da ngeen ko topp da ngeen xam ne su xasee ñëw rek man sama sarixa day folliku léegi sarixatu muhammad sallallahu sarixa bu bees bi mooy nekk luwaa yu bees yi nga xam ne comme njiitu nii rek président bi mën naa signé accord def ay kii nangam naam ay décret mais benn président bi toog day folli décret yooyu maanaam buñ ko mënoon a misaal dañ bàyyi jéem a leeral rek mhm. maanaam bu doon misaal comme daji Macky Sall mi nga xam dafay jógee si ñëwoon ay décret mhm. Alaaji Basiru Jomaay Jaaxaar Fay bu ñëwee mën na koo dindi ah, yàlla yàlla na ko saa borom yàggal lool barke mhm. Sëriñ Tuubaa mën na ko dindi mën na ko dindi pouvoir bi yi Macky Sall amoon pouvoir bi ci xalima dong la ne woon xalima yàlla ku yéeme la fi ne nii pouvoir bi nekkul ci jëmmi Macky Sall waaye ci big big bi la ne woon waaw moo <laughs> tax suñu borom du juum mukk noonu wala waaw dafa waat sax ci. ci uh-huh. xalima. Uh-huh. ak li xalima di bind. suñ la. Uh-huh. kuy seetatal alxuraan da nga ciy gis yu yéeme yoo xam ne da gis ne man man daal li ma jaaxal léegi ci booy classe booy yi daara yu ndaw ndawaan ñu baal ma. <laughs> ñoo daal nuy neex lañ koy kii rek seet seet seet macha allah kon mbokk yi 88 la 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 man nag moom.

dajjal mhm. ak yu mel noonu waaye dafa amaat yeneen yeneen yàqute yoo xam ne nag moom euh, dañ naan lu ci bari mi ngi jógee ci euh, ci tubaab bi mhm. ci européen yi mhm. ndax boo xoolee depuis ñu am naxda maam ñu am euh, révolution boobaak léegi ay côté mi parce que ay xarnu dix-huitième ay côté dix-huitième siècle la wala dix-septième siècle dañuy gis ne ñoom dañuy indi ay ay déggin yu bees ak ay principe yoo xam ne ñoom seeni gëm-gëm la mhm. ñu indi ko nag ci dëkku Afrique yi mhm. ak lenn ci dëkk jullit ñi bëgg koo bëgg leen ko imposé mhm. lu mel ni ay xorriya mooy liberté ci la bokk wala lu ñu tuddee ay musaawaat mooy ay égalité liberté de la femme liberté d'expression almaniya ay laïcité ah wala lu mel ni al awlama li ñu tuddee mondialisation yooyu yëpp nag dafa bokk ci li yàqaari jikko yi nag ndax bu njëkk nag wax dëgg yàlla mag ñi ak ñi fi newoon di dund dafa am lu leen xawoon a ñàkk mhm. ba nga xam ne même sax ku ci bëggoon a def naka sulu noonu doo ko man mhm. waaw kër gi ngay nekk moom daanaka mhm. sa waajur moo fay nekk sa bàjjan sa waajur bu sa waajur bu góor sa bàjjan ak say mag ak say rak te ñëpp dañuy teg ci njub kon yow environnement bi nga juddoo ak njub rek ngay mën a xam soo mën a xam da ngaa judd fekk say mag jàng alxuraan ñu am ñu am lu ñuy jomm ñu am lu ñuy rus nga juddoo ci environnement boobu di ko yooyu rek ngay mën a amee da mhm. dem ba jamono ubbiku nag environnement mooy mondialisation mhm. nga xam ne adduna bi daa ubbeeku ne ko borom xam-xam yi di misaale nga xam ne dafa mel ne alam a ndaw mhm. c'est boo xam ne lu xew ci kër gi rek waa kër xam village day nekk dëkk bu ndaw boo xam ne lu xew ci kër na mën nañu koo yëgandoo waaye lépp lu xew ci génn kër rek dëkk bépp mën nañu koo yëgandoo adduna bi léegi daa mel noonu sur l'urgent maanaam benn xew-xew bu xewoon Amérique nii nii nii yow balaa mat cinq minutes wala dix minutes mën ngaa jot information mhm. wala Asie ah, fa continent yi gën a sori ak mhm. yu mel noonu ubbi ko googu nag mhm. ak moyen yi ni mu gën a yombe xam ne loolu daa waroon a gën a yombal jaamu yàlla a nuur ci ak mooy yàlla ndax mondialisation daa gën a bon yëpp ci loolu lay dugg eh, déggin yi ñuy imposé nga xam ne nekkutoon suñuy pince nekkutoon suñuy gëm-gëm mhm. mooy nit léegi góor ak jigéen dañoo war a yem mhm. ah wala nit ki daa war a am liberté ba lu ko neex mu wax mhm. loolu dafa wuteeg eh, jàngalem lislaam dafa wuteeg dégginu lislaam te ñoom lii ñuy wax lépp di ko théorie lislaam moo leen ci jiitu te lu ci nekk na mu waree ak nañ ko war a defee lislaam waxee na ko noonu alxuraan dafa wax ne wala isa zakaru kal unsa góor moom jigéen du mas a ne góor mukk Mm-hmm. ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa kon maanaam ci ci ci ci ci tënk. Mm-hmm. maanaam wala ci leeral lislaam kon dafa dàq loolu ñaan naan parité. lislaam daa dàq parité. Mm-hmm. jigéen moom mënut a jaaru fenn ba ëpp kàddu. Euh, euh, wala ñuy tolloo wala ñuy tolloo égalité déedéet. am na ci côté yoo ne ci diine ñoo ko tolloo xam nga. bu fekkee ci côté jaamu yàlla. ak ci côté tuyaa maam li tuyaaba li ñuy fay góor li ñuy fay jigéen. innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal wal xaanitaati julit eh, julit bu bu jigéen bi jaamu yàlla di góorgóorlu mhm. ak góor bi góorgóorlu ci jaamu yàlla mhm. suñ borom du leen gën a le ci ay tuyaab mukk mhm. bu fekkee ne jigéen gi gën a farlu sax dañu fay jigéen gi moo ëpp ndax man xam ne saaliñ fay na si te suñ borom du tooñ kenn te ku nekk da a jëf la lay fay dégg nga walaw kaana nit xaalu zarra doonte dafa toll ne sax zarra suñ borom dana la fay jëf jooju waaye boo xoolee ñoom dégg ni ñu am defe ne islam daa ginnaawal jigéen da ko joxul akam ak nangam yooyu dafa dafa bokk ci li nga xam ne ba tax jigéen ñi di rafetal wu di wax mhm. ay kuréel yu bari di judd ay mhm. féministe ay nangam mhm. ñëpp naan dañuy xeex seeni droit am sax ci Europe ñu leen di jàppale boo xoolee seen banqaas yi ñëpp ñi nekk senegal ay banqaas lañ mais kenn yi ña nga ña nga bitim réew di dooleel ñii di leen financé euh, di wax ne góor euh, jigéen daa war a yem ak góor àq ji góor am euh, la jigéen war a am jigéen di góor di def lépp jigéen da ko war di def ak yu mel mm-hmm. noonu yooyu mm-hmm. yëpp daal li li ñuy gàllankoor loo xam ne bu fekkoon ne yow tënkoon dañoo tënku ci mm-hmm. ko jël duñ ko jàpp yaa daf bokk ci ci ci li yàq jamono ci yàq-yàq jamono yi wala yenn ci mandargay mujj mujj jamono wala yenn ci mandargay mujj jamono sama xarit Oustaz Baye Serigne Gueye maa ngi laa ziar bu baax a baax pour <laughs> waxtaanu neex yi Oustaz te dama lay nettali sa benn <coughs> jàngalekat mbokkum jàngalekat mm-hmm. soo dafa nekk ci baas bi mm-hmm. di waxtaan yàlla nee na yonent bi nee na ba pare ñu génn fekk ci soxna Fallou ah ëpp naa <laughs> ñu ne ko ah, sëñ bi ñu ne li téere bi wax laa laa wax <laughs> kon képp ko xam ne bëgg nga ñëw def rek xëy na 88 628 19 05 waa 88 628 81 08 Moussa Abdoulaye Seck borom màggal gu neex gi maa ngi laa ziar tarkal la euh, di ziare képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel émission bi waaye di ziar amical d'enseignant bi ak euh, ñi xam ne ñoom laa seqal liggéey bi yëpp maa leen di bu baax baax di jëndaanaan maa ngi lay béggee di ziar sama yaay Absa Diagne waaw sama yaay Maguette Diagne wala sama yaay Maguette Gadiaga bi nga ne bi nga nag sama xel daa dem ci euh, Antumaan xam ñoom kër lay nekk fii kër nekk fee bi nga wax loolu sama xel ci ñooñu rek lem maa leen di bu baax a baax di siyaare képp ko xam ne yaa ngi bàyyi xel mbokk ñi Eh, ànd ak Oustaz Badara Sylla eh, mu war a waxtaan ak ñun ci mujjug jamono Oustaz xam naa eh, bu fekkee ne jamono ji dama damaa gis jamono ji yenn ci góor ñi sama classe gi dañuy jàpp jigéen di ko toroxal. Mm-hmm. waaw loolu nag wax yàlla lislaam santaani ko. Mm-hmm. est-ce que loolu mën nañu ko boole ci mujjatalu jamono wala yu na noonu maanaam fitna gi nga xam ne góor ñi dañu koy teg jigéen ci. Mm-hmm. waaw ci man ci lay dugg rek. ndax ni ma ko waxee léegi bari na yuy xew léegi yoo xam ne même bu njëkk amoon na waaye daa mhm. gën a takkar naa si léegi mhm. xam waxale di forcé yi ni ni mu bëri nii mhm. daanaka sëy bu ñu takk balaa mag euh, six mois nga léegi ñu ne di forcé nañ tàggoo nañ ak yu mel noonu yooyu yëpp li ñu ko teg mooy yi mën a wax nii rek dafa am yu ubbi ko suñ kanam yoo xam ne xam nga waxale nag suñu bokk góor ñi ak suñu bokk ñëpp jigéen ñi ñu bari ci ñoom dañuy am lu ñuy euh, gis ci li ñuy roy ci ci réseaux yi am lu ñuy roy am loo koy jëlee faneen ba koo dundee ñoom. ba ko dëppaleeg seen dund te bokkuñu. Mhm. Euh, masalan nga gis koo xam ne day ay problème ci mhm. biir néegu sëyam maanaam mhm. yenn problème yooyu da ko weer ci da ko ci ci ci penc bi te problème yooyu noonu bu fekkoon ne lu jaaduwul la maanaam ma war naa dem ci euh, waajuru ku góor ki expliqué ko mhm. ñu waxtaan waxtaan ci biir waxtaanu néeg maam ñu lijjanti problème yooyu mhm. bu fekkee mënta mën ñu koo lijjanti foofu mu dem ci bi mhm. bu jégee dayoo mu dem ci moom ay waajuram ñu lijjanti ko waaye jurul di weer sa bopp ci penc mi loolu day xaw a nuru ne euh, day xaw a am lu muy nuru daal te da da sutura daa xam naa bala ñoo yaatal da ngaa ñëw ci point bu am solo ñi nga xamee ne dañuy sëy sëyub natt wala euh, jataay maanaam li nga bëgg wax mooy euh, nday awa mi nga xam ne lu mu abdu rek bu génnee ca natt ba wala ca jataay ba wala fay naan kafe wala fa jigéen ñi dajee mhm. ñu dee ko fa werante na ñu nekk ak seen boroom kër yi mhm. di ko di ko di ko di ko ta tas ci marché bi mhm. loolu loolu wax dëgg yàlla euh, mbir mu doy waar la loolu moom ab julit war na koy may war na koy may julit ak moroom ja rek maanaam waroo génn di tudd sa moroomu julit foo xam ne ñëw fa rawat na nga koy tudd lu ñaaw waxuma laag nag ngay weer sa borom kër ci mbedd mi mhm. xam nga yow boo toroxalee maanaam kër mooy yow mooy toroxal sa bopp mooy weer sa bopp rek mhm. mooy weer sa bopp mhm. gis nga ñaar way denc dencante ku ne da ngaa war a suutal sa morom ni ma ko waxee fekkee am na problème boo leen di lijjanti ndax problème mënut a ñàkk ngeen lijjanti ko seen biir nekk ñu ko ci war a jot waaye bu ko yóbbu ca penc ma ca natt ba wala bàyyi ba gàddu soo marché bi dem marché di <laughs> ku di wax wala toog ci garabu yor-yor yeeg garabu bëccëg gi. Mhm. rek ku ne di wax la nga fanaane biig. Mhm. ku ne di wax la ngay dund ku ne di wax la nga am. Mhm. te ña gën a yeewu ci ñoom sax. yooyu ñoom dañ ko wax. ñooy poussé nit ñi nag ñu leen ci dugal. waaye ñoom seeni nit ñi sëyee. ak niñ seeree seenu sëy. maanaam kenn xamu ko ci ñoom. waaye kay xanaa kay ma xuura ma ña xam ne ñi sant jaxateeg loo. ak <laughs> ñi sant daara week ñoom ñooy génn di. di feeñal. ci biir loolu yëpp it mën nañ koo mandargaay ci ci mandargaay mu jëm jamono la bokk. macha allah am solo kon mbokk képp xam ne bëgg ñoo def day def 88 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 sama soxna Soda Gueye maa ngi laa ziar bu baax a baax a baax moom moom xam naa ne jigéen gu man góor la macha allah xam naa yooyu oustaz wax moom waaye di ziare euh, Jalle Ndiaye nekk fii. Touba garage bu bees maa ngi koy ziare di ziare suñu nijaay Ada Diop euh, njaaye Kayre ak waa kër gi yëpp maa ngi leen di bu baax a baax mbokk yi ñu ngi ànd ak Oustaz Badara Sylla ci waxtaanu am solo wi muy mujjug jamono. Oustaz ba tey njiit yi nga xam ne dañuy àtte comme ni la neexee maanaam day gis ku mel ne fàllu moom day am doole lool fekk sa doom mu viole ko wala mu loor ko mun ñu dem ci yoon mel la dama lay tooñ duma la ñu ko fi gis yooyu yëpp yooyu fu ñu ko mën a bool yooyu ci biir yooyu yëpp ci euh, mandarga yi àq ko semence mhm. la ndax loolu siis bu jeng la. Mhm. attekat boo xam ne daa jeng. Mhm. te jeng nag tooñaange la. ndax nit ki wax dëgg yàlla yenn saa yi dafa wax ne. ne leen wér ne léeg-léeg de nit dina ñëw. moom nit dana tooñ morom ma. ñëw kalaame ko. waaye ka tooñ ñëw. da ko wax kee. kenn ki rek xam nga am na ñoo xam ne yow mën a wax am ñu mënut a wax. am na ñoo xam ne bu ñu tegee seen i lay da ngay def ne lañu wax dëgg la. <laughs> nee na ba ma jox kee àqi àqi morom ba ma jox kenn ki àqi morom ja mhm. waaye nag képp koo xam ne defal naa loolu na la leer na day mel ne sawara laa teg sa mhm. képp koo xam ne ñëw nga mhm. mën a wax rek mana lay mën a kii ba génn ca fekk da fekk da ngaa tooñ du ma jël àq joo xam ne du sa àq ma jox la ko day mel ne sawara laa teg sa loxo kon loolu jara moytu na ko la kon siis yi mhm. dañoo war a àtte rek li nga xam ne mooy dëgg suñu mhm. borom di wax ne inna allaha ya'muru mhm. bil adli wal ihsani wa ita'i sil qurba al adl justice justice suñu borom da koo bëgg lool yàlla dafa bokk ci turam yi adil adl al adl adl bu ñu ku maandu la gi moo tax mu wax ne fa man saa fal yumin wa man saa fal ne Eh, inna hadaynahu sabila imma mhm. shakiran mhm. maa nga bokk ci ñu baax ñi mhm. shakir ko imma kafura kon dafa tànnloo nit ki ñaari ñaari yoon yow nag yaay suwaa yoonu baax waa ngi nii yoonu bon waa ngi nii yoonu baax waa ngi nii ñenn baa ngi nii nga jaar ci yoonu baax bi ëllëg suñu borom atte la ci maanu teem daal lay fay yiw wi li nga doon def wala nga jaar ci ñal bi suñu borom daal di atte maanu teem fay la doon def suñu du tooñ kenn nit ku ne nit ku ne nit ki wa maa rabbuka bi zollaamin bi mhm. zollaamin lil abid yàlla nee na mhm. mhm. zollaam faal siixa mubaarak la jëfandikoo ni nee na nekkuma ab tooñaakoon ci jaam bi waxut euh, jëfandikoo wut euh, feex kii bi rek noonu ismu bi rek noonu zulm rek mooy tooñ waaye zallaam la wax zallaam la wax zallaam kon loolu day wane ne yàlla ku euh, noonu ma ko melokaanoo noonu la bëggee nit ñi melokaanu ak ak maanute mhm. ba nit ku nekk la ngay àtte nga teg ko ci dëgg mhm. bañ cee topp bakkan mhm. bañ topp ngir ne Fallou dafa am koom-koom jaar na ci suuf germa wala sama xarit la wala en tout cas am na yeneen yi ñu ba doomam sax boo defee aw ñaawte bu ñëwee ma jëllale ba génn ci loolu moom wax dëgg nga xam ak suñu naa dama bëgg balaa temps bee jeex ndax uh-huh. ma uh-huh. ma ñëw nag ci aqilu sama bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bind uh-huh. nag tuuti ci nag lu ëpp ci melokaan yi nga xam ne melokaan aaxiru samaan la te mi ñu koy dund mhm. incha allah boo kii rek xam naa oustaz bala ñëw foofu képp ko xam ne ba nga ñor def waaye ah, xam naa oustaz bala ñoo dem ci aaxiru samaan xam naa mënta ñàkk waaye bëgg nañ taxaw ci euh, ah, ministre bi nga xamee ne mhm. comme jamono ji ni yàqoo yaa ngi dégg coowul euh, góor jigéen ñi ak yu mel noonu ministre bi nga xamee ne wala président assemblée wala njiitum réew mi nga xamee ne fexe na ba dugal loolu ci réew mi kooku nuñ ko mën a suñ koy mën a dugal <laughs> xaw yooyu day dugaat ci yi ma doon wax rek la naan la dañu ko bëgg a imposé mhm. maam ñoom moom ñu dund ñoom européens yi occidentaux yi mhm. mhm. moom la ñu dund ndax moo dëppoog ñoom seeni principe seeni allo aha ndax moo dëppoog ñoom seeni principe moom la a dund léegi ñoom ñun ñu loolu nag benn jullit waru koo nangu mhm. te jàpp naa ne suñu njiitu réew yi fi nekk mhm. ak suñu ministre yi duñ ko nangu mhm. ndax nag ñii fi nekk nii ñoom yàgg nañ koo xeex yàgg nañ ko jabolu si au contraire kay xanaa ba ñu yóbbee luwaa ba ci assemblée yóbboon nañu luwaa bi euh, état bi fi newoon pouvoir bi fi newoon ñoo jàddalewul luwaa ba ñoo jàll na coow yi dem yëpp du am waaye ñoom ñoo boolekoon luwaa ba te ba léegi Bassirou Diomaye Faye ak waa këram ak Ousmane Sonko ñoom amaguñ majorité assemblée 20 députés rek la ñu am assemblée. 20 députés. kon ñoom mënuñoo jàllale ak wàll. xam naa oustaz dama lay dagg. dama lay dagg ndax xam naa ne yéen bu ne jomaay Sonko rek ngeen bëgg kii waaye baax na 88 la 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 oustaz. waaw nan la doon dundee jamono ji ak yan jàngat jàngale la def ci mujjug jamono. waaw sëñ bi yàgg naa araftu. borom xam-xam yi ndeysaan. dañoo suñu borom dañoo defal dañu tuddee ilmu la dun maanaam am xam-xam boo xam ne du nekk lu ñu jàng ci téere mhm. wala du nekk lu ñuy gis wala nanga may xam-xam la wax ne suñu borom moo leen koy defal mhm. ba loolu day tax ren yóbbee ci ñu xam lu bëree bari mhm. xam li fi nekk xam li teew xam lu bari sax lu ñëw aha tafadal xam lu bari lu ñëwagut euh, ba tax na sëñ bi bokk na ci am njàngaleem daan na leeral nit ñi ci ak teewam bind benn euh, leeral nit ñi euh, mujjug jamono bu ñëwee ak yan mandarga lay am ak yu mel noonu ngir bëgg koo mayt euh, maytu ndekaloo nit ñi ba nit ñi maytu ko xam ne kat loolu warisu su koo dund mhm. te ku ko dund ay jafe-jafe rek loolu lay jural te ku faatu ci melokaay yu mel noonu safara rek mooy nekk sa kër mhm. bind na ci aaxul samaan benn téere la bu siiw la xam naa lu xaw a bare la waaye dañuy ñëw rek ci côté bi muy junjee ci aaxul bu noppee bi ñu bi ñu ko tax a mayee ñu leer laal ci benn wasiya boo xam ne ki ñu wax muxtaar ak daymaani la ko dénkoon di wasiya bu am solo mhm. ñu ñu leer ñu jàllale ko ci mhm. sëñ bi dafa wax ne fal taalamu yaa jumlatal ixwaani bi annakum fi mhm. axiri zamani allo allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam ah, soxna si yëkkati kàddu gi kooku la ak fooy wootee yaa yàlla nangu siyaar xam naa ne li nga wax dafa xaw a suufe loolu de bu mënoon a yëkkati ko tuuti dina baax allo. soxna Sylla Touba Mariana. soxna. may soxna aha Oustaz allo. waaw eh, Oustaz. waaw bisimilah. ah waaw daa xam wax daa mel. daa aywa. yëkkatil kàddu gi tuuti waaw waxate kaw bu baax. di leen bu baax di leen siyaare. waaw ñu lay jël siyaar bu baax a ngeen dala tay ci émission bi. Mhm. sëñ Bada si la waaw. Uh-huh. ñoo ko nuyu baax di ko siyaare di ko ñaanal gudd fan. Mhm. ak xéewal. Mhm. ba li bëgg si yoon bi yëpp mu am ko. amiin allo. ayo xam naa kooku am njaayeen loor a sant wu ne kër di ba jeex na macha allah euh, soxna. soxna day soxna si la. nday soxna si la ñu ngi koy ziare bu baax baax kon képp koo xam ni ba nga ñoo dab rek da nga def comme ni. soxna soosu def 88 la 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 aha Oustaz. maa ngi koy nuyu soxna euh, si soxna si la moomu. Mhm. ak borom këram di nuyu sama baay ji ne ci mhm. <laughs> di nuyu baax a baax. Mhm. kon sëñ bi dafa wax ne fal taalamu yaa jumlatul ixwaani bi annakum fi axiri zaman. ni ngeen xam ne yéen. am yéen sama mbokk yi ni ngeen xam ne kat. ni ngeen xam ne yéen a ngi ci mujjug lan moo tax mu wax loolu mhm. sëñ bi da koy da koy màndargaal ay ay ay da koy da ci indi ay firnde yu wane ne ñu ci mujj jamono mu ne qad zaharat alaamatul xiyaama mhm. li kulli aqilin fail alaama mhm. ndax kat am na mandarga yu bëree bëri yu feeñ yoo xam ne day wane ne saa léegi mu taxaw bis penc léegi mu taxaw ayo te mandarga yooyu salaamaaleykum salaamaaleykum allo maaleykum salaam sans kookan laak fay wootee maa jël si waat soxna Ndeye Soxna Sylla mhm. sama seex boobu de lu ma ci wax lu ne doyul rek xam nga ne. saa <laughs> si bisimilah wax la moom. waaw bisimilah. <laughs> allo waaw bal. Ah, sama sama sama seex la ñoo ñoo ñoo bokk ah. bu baax la de moom. Uh-huh. sama xol dafa seet ba mënu maa wax. Uh-huh. billaahi. Ah, soxna soxna Ndeye. waaw. ah nan nga nan nga jamono ji comme li nga xam ne mooy sunu euh, thème tay bi mooy mujjug jamono ak lan nga ñu ci ah. mën a mën a mën a mën a yokku. oh là là aha ah oustaz. mu ne xad zaharat alaamatul xiyaama li kulli aqlin fail fail a mhm. nee na nag koo xam ne am nga xel. Mhm. nga gis li xew ci jamono lépp kon nga xam ne ñu ngi ci jamono. Mhm. mooy gis penji léegi mu léegi mu léegi mu am. haza zamanu aqbaxu zamani li kasrati l asyaani fi l buldaani nee na jamono ji da ngeen xam ne mooy jamono ji gën a bon ci jamono yi yéen saa salaam dafa waxoon ne siècle yi gën ci siècle yi jamono ji gën ci jamono yi mooy sama jamono su ma wéyee jamono ji topp su ma wéyee jamono ji topp te jamono di gën a wéy rek jamono jamono yi di gën a bon di gën a bon te ñu ngi ci 1445 kon day loolu day wane ne ñu ci aqbaxu zaman ndax bis bu nekk nga di yëgg luy yuy xew yoo xam daaw ko dégg jaaro ji tey la gën a tasaaroo rey bakkan yi bis bu ne nga dégg ñu la rey leen di sàngam mhm. ngi sax ko xam ne jël paaka jam ko waajuram mhm. wala magam mhm. wala koo xam ne dañ naan xaritam la woon yaa ngi dégg waaw bisimilah allo maa ngi salaamatulah maa ngi ziar kookal la Abdakim Ka grand célibataire maa ngi lay ziar yaa ngi di leen nuyu bu baax a baax a baax. <laughs> sëñ Bada bisimilah. ñu lay ñu lay nuyu baax di la jox sa wàccuwaay. ak ak sëñ Bada ñu ngi ñu ngi lay ziar ngi teewlu émission bu baax a baax. ndeysaan ndeysaan. wax dëgg am na solo lool am na solo lool lool lool lool. ndeysaan ndeysaan. waaw wax dëgg yàlla li nga développé ci affaire semence bi moom teewlu nañ ko bu baax. <laughs> di nuyu suñu xarit moom borom baax la moom yëpp na suñu daara yi loolu waaye borom baax la. moom mooy ustaas bi daa yëpp suñu daara yi rek waaye. waaw ak suñu daara la ab jàngalekat la de. waaw a di ah, dëgg la de. <laughs> waaw suñu Mbara waaw maa ngi nuyu. waaw ah, kooku de <laughs> mbana la soble la. <laughs> waaw lépp la eh, la. di di nuyu borom rajo bi tamit ndeysaan mooy ku baax la ndeysaan. alaaji Modou Diop Thiat. waaw kay maa ngi si ziar baax di leen li mboolem mboolem gan yi ma fekkoon foofu rek. tamit gan yi nit ñoo xam ne ñu yaatu la wax dëgg yàlla. sëñ Xaadim amoon naa yéene naan ci gi loolu de moom. Ah, xam naa vingt yoon rek ci kàttanu yàlla. waaw waaw waaw waaw incha allah maa bu baax a baax. ndeysaan ñu ngi lay ah, moo tax ma teel a yeewu nii sax di <laughs> yow yow si àddaaki <laughs> yow léegi bi dem de. ah <laughs> ah ah. doon waar yow doole ngay sàngoo kay. moom moom ndeysaan yàlla def moom mu mën a moom. moom moom yàlla waar yow daa la moom. macha allah ah ndeysaan ma sama jàmbaar la noonu wax dëgg yàlla jàmbaar la noonu. si àddaaki borom bu neex bi macha allah. waaw boo gisee ni mu tàmbalee sax xam nga ma ko may yàlla ko yàlla taxaw baax na. amiin amiin. barke suñu Tuubaa jëf jërëjëf jërëjëf amiin ñu ngi lay ziare bu baax a baax sëriñ Daara xam naa leen may baal man moom yéenay sama doomu bàjjan day boo ngeen ngeen ngeen nangu ko ndax dama ci ko koo xam dafa ma lakkal lool ku ci mel ne <laughs> sëñ Fallou feeg jugut ci li mu nekk moom yéen sëñ Daara dama leen di sànni xeer waaye maa ngi leen di ziare baax a baax képp ko xam ne sëriñ Daara nga wala nga yëngu ci arxaan wala nga yëngu ci diine ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax a euh, di ziare képp yaa ngi bàyyi xel euh, rajo bi di

ku mën a defar nit la mhm. te fekk ku naqari xel loolu mu fexe ba def ci moom alxuraan mhm. fekk ku naqari jàngal loolu mu fexe ba euh, def ci moom alxuraan xam mhm. naa suñu daara yi xam naa moom <laughs> méthode méthode méthode jàngale moom yar na ko fekk ku ku ku ku dëng loolu ko ndeysaan ndeysaan bi nekkee fee sax euh, képp koo xam ne ndeysaan euh, sëñ bi la joxoon mu lay jàngal dalaa xaw a fitnaal wala mu sonal la da naan da nga dem ci ga ne ko da yóbbu ma ci ilmaan mu jàngal ma bu baax la 88 628 19 05 bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. Dior ñoo leen di ziar. yaa ngi leen ziar kooku mhm. leen di nuyu di leen ziar baax rafetlu liggéey bi am solo lool. Mhm. sañ ba da xam naa mii waaye da ko dëgg kàddu gi xam ne. Mhm. ndaw la luñ teel a xet lool ci yoonu bëgg lu baax. dëgg la ndeysaan. ndax si li si lii moom. ndax am lu yàlla def ñoom. Mhm. waaw. loolu njaay mu jur pusi mu réer. Mhm. ndax yaakaaru na lool lool lool. Mhm. yàlla na ko yàlla musal ci cat. amiin ci barke Serigne Saliou. amiin amiin. yooyu itam di la nuyu baax. amiin ndax euh, bu ma ne am loolu rek gën a yàlla am nga ci cër bu mag. ndax ku dégg itam kiy laaj. xam ne li muy laaj xam na. waaye bëgg na ñee teewlu itam. ñi xamatoon xam. ñi nga xam ne tam dañoo fàtte woon mën cee fàttaliku. Mhm. Euh, ak itam yekkaaju. Mhm. am na solo lool. macha allah. ngeen andi ngeen andi tam bu am solo muy aaxiru samaan. Mhm. da day na sëkk ci tegtal rek. xanaa tey jii boo boo jumoon ci. armée yi. saa yoo duggee bay génn. booy dugg yaa ngi dajoon ñuy génn. sooy yaa ngi dajoon ñuy dugg. macha allah. demoon ci hôpital ba. sooy dugg yaa ngi dajoon ñuy génn booy génn yaa ngi dajoon ñuy dugg. sëñ bi sëñ bi doguma la loolu bayit bi ko sëñ Tuubaa waxee mooy wa kasratul amraadi mhm. wal asxaabi wa mhm. kasratul mawti mhm. mooy loolu laa koy firndeel sëñ Tuubaa loolu wax nee na faata gi day bari lool waaye tawat yi ak jàngoro yi day bari lool ci àll bàyyi sëñ Saliou bàyyiwul dara macha allah waaw <laughs> jërëjëf sëñ Bada ci loolu eh, doy na sëkk war a dem ci marché ba gis ko ñàkk a dépasse waaye gis koo xam ne kay dem ci marché ba mën naa am duggaaleel Mm-hmm. ñoom daal di dem ci marché te du ko wàññi dara. Mm-hmm. Euh, fenn fu ci ne daal. Mm-hmm. Euh, mënees sa fa teg baaram boo xam ne nii. déglu danañ xam ne. lu wér la te wóor te itam borom xam-xame ko saak. wallaahi kon war nañoo bàyyi xel bu baax a baax. ndax suñu sang boo xool. ne kenn ku ci ne yàlla saa borom saa wa taala na la ñaari biir. muy biiru bopp ak biiru bàmmeel. waaye lam ci teg mooy lan. sa biiru bopp de bu mu la soxal. day mel ne dañ koo laajaat question laajuñ ko waaye day mel ne dañu koo laajaat ne ko ndax lan sa biiru bopp bi mu la soxal mu ni yàlla subhanahu wa taala mil sàkk dana la jox loo ci def mhm. xanaa loolu dégg-dégg bi ñu war am mooy olof Njaay refara di wax na yàlla subhanahu wa taala kat bu la sàkkee mhm. day xool la nga mënut mhm. mu mënal la ko xool la nga mën mu bàyyi ko yow donte mooy mën a lépp nag mu mel ne si dafa wax ne sa biiru bopp bu mu la soxal ndax yàlla subhanahu wa taala mil sàkk dana la jox loo ci def kon day mel ni adduna ji mhm. ñu nekk war nañoo bàyyi xel ëllëg yow ma xiyaam jën jëm mhm. ndax biir bàmmeel mhm. tey ka fa ne boo doon ko pëkk pëkk lan nga gën a soxla mun dellusiwaat adduna donte kenn sax lañ fi am ba man fee fàgguwaat loo xam dañ koy jëfandikoo fii ñu ne kon rek waa ñun xam ne ñoo fi desandi nañ góorgóorluwaat ci jaamu yàlla tey dimbalante ci ragal yàlla tey moytu am fa ak lépp lu xeetu ko dem na ba ñu nekk ci ak caaxaan. Mhm. fexe nañ ba ñenn ñi dooleel leen. Mhm. muy waa ëllu seytaane ak ñi saaju. Mhm. ba nga xam ne dañu jàpp ne lañ nekk mooy dëgg. loolu lépp suñu tubaab doon wax naan. moom. lu mu suuf suuf yàgg yàgg day jóg jëm kaw. waaye li nga xam ne ak nen la moom lu mu kawe kawe yàgg yàgg day na saxaar rek jëm suuf. loolu ñu bàyyi ci xel baax. kon dañoo dañoo dañoo sob di wax rek waaye daal. <laughs> macha allah <laughs> ma doon wax yëpp wax dëgg yàlla yéen a koy wax. macha allah. ndax yàlla nag nit bu nekkee ci aw yoon bu baax. Mhm. nga fekk ca. Mhm. wéttile ko. Mhm. du bàyyi xel ci la muy wax. dana ko dana ko tax a gën a sawar. macha allah waaw donte bu toogoon sax kenn wuutiwul téléphone da nga xam ne ñu ngi koy déglu. waaye woote gi ñu woote dafay gën a doole rek. dëgg la de te itam day gën a day gën a jàppal rajo bi. dëgg la de ñoo ngi nuyu bu baax njiital kër gi suma Diop Thiat. ak mboolem personnel bi koy jàppale. di leen nuyu di leen si di a baax. di jégalu kàddu Ah, macha allah kàddu yi kay mëntoon a mëntoon a ñàkk euh, Seydina Ousmane ah, macha allah ah, Seydina Ousmane ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne fi mu dugg see wax dëgg yàlla am na solo lool lool lool nga xam ne ñun ay ndaw yoo xam ne daal dañoo nekk di nab nabi ci tool bi kon day jaadu euh, yéen ñi xam ne yéenay suñuy kilifa njëkkuñu ci waar wi léeg ngeen ci ngeen ngeen ci dàggi ndax paakalum ñëw ñëw ñu di ko dàggi du mën a ñàkk kon képp koo xam ne bëgg ñor bay def 88 628 xam naa di leen euh, bàyyeeg oustaz mu daal di àggale ci axiru zaman boobu aha kon ñu njëkkanteeg temps bi mhm. kon sëñ bi nee na haza zamaanu aqbaxu zamaani li kasrati l asiyaani fi buldaani mhm. nee na jamono jii mooy ji gën a bon ci jamono yi mhm. ndax mooy yàlla day tasaaroo fépp ci àdduna waaw mu teg ca wa kasratil amraadi wal asxaami wa kasratil mawti ala aqwaami mooy li suñu Ousmane mii doon doon wax nii léegi nii da ko bari xam-xam la masha Allah Seydina moom xam naa war naa ñëw de waaw war nga ko war nga ko dalal moom kay dina ñëw xam naa ne Seydina bu fekkee mën naa ñëwaat dana dana dana baax daan ko soxla fii lool taskal la borom borom xam-xam la masha Allah jàmbaar la nee na tawar yi day bari lool xoolal léegi nit ñi li ñuy jàmbar daa ne ko koo gis rek mën nga mën nga ne ko mbaa tane nga mbaa mbaa yaa ngi ci jàmm ndax daanaka nit a feebar waaw ku dox sax am na feebar ñi dox ñi def seen activité am feebar yu ñuy yu ñuy weyal feebaru jabet yi feebaru tension yi ñi jàmba tànk yi metti ñi jàmba feebar daa bëree bëri kenn xamul lu ko waral waaw damaa jàpp ne yàlla daa jël la xol nee na faatu gi day bëri lool lool lool lool waaw bis mën nañu tàggale ay ay junni junni nit yoo xam ne Mhm. heure bu ne rek maanaam li nga xam ci nit ñoo xam ne mhm. kon loolu bu demee ba mhm. tiital ñëpp ndax kat dee moom mawtu aqrabu wa adha wa amar wa baxtatan yaati wa maa xam ne ma far bu ñëw du tàggoo day bett kon nañu sóoraal ne faatu mi ngi suñu kanam kon nañ bàyyi xel nuur gii nuur ci àdduna dëgmal àdduna rek mel ba mel ba faatidee mel na dee daamul te nit ki lépp lu koy jegee dee ko gën a jege ñu ko suñu tubaab mawtu aqrabu wa mhm. addaha te moo gën a mën a jombale wa amar te wa gën a wex mhm. kon doomu aadama war naa sóoraale ne mhm. moom kat am na lu ko lool loo xam ne moo gën a jege takk ndéeram bii te mooy dee mu boole ko programme bi sama benn góor sama benn maa ngi nii Baye Cheikh Fall sama baay bu baax ku baax a baax maa ngi dëkk fee ci Touba mu Quran ku bëgg baax soo koy faral di wax ne nit ñi dañuy teg ay programme mhm. ci seen mbiru àdduna maam masalan ne tabaski gi ñu yëm rek mhm. am na ñoo xam ne moom dañu war a sol programme nañ ko yóbbu mhm. a koy bëgg a jënd yu bëree ci euh, euh, kii bi programme nañ ko waaye dee moom programme wuñ dee da nga ko a ci programme ci journée bi sa emploi temps nga ko bind xam ne mën na laa gaar tay tay tay man mii fii may waxee nii nii mën na maa faatu fii ah day bettali waaw yaxti baxtatan mhm, hmm, oh, <laughs> <laughs> wa maa an mafar yaati baxtatan day day betti damaa soob rek xaw ma ci dara ya oustaz bismillah jàngalekat nga waaw ma kon maa gëlee mu tëjee wa kasratil jahli maxal xiyaana wa xillatil wafaayi lil amaana mhm. nee na réer gi nag day bari lool waaw mhm. ah, sama classe gi nga xam ah, ne xamuñu dara fi mu ne ñoo toog ci micro yi di tararari di wax rek nee na réer gi day bari waaye war gi war gi day bari maam mhm. koo jëflanteel mu war la adduna mhm. daa ba nga xam ne léegi kenn wóolatul kenn mhm. koo gën a wóolu ba di wax say secret wala di ko dénk ko yow dong laa wax na leer na laa dem ci keneen moom it diwaat ko ko wax noonu tas ko ci penc bi ñëpp ñëpp kon nee war gi bari kenn kenn du wóolu kenn waaw moo tax xarit ak yooyu sax da ngay dem ba léeg-léeg posé question est-ce sax am na am na ñoo xam xarit am na ñoo xam ne na xarit de. <laughs> oustaz euh, da cee euh, xarit boo xam nii <laughs> ba tey rek. <laughs> dama am fu may làq waaye doy na waar daal kon xarit ah. googu. Alaaji Fall la grand célibataire maa ngi lay ziar aywa. waaw kon mi ngi noonu. Uh-huh. waxi leet lu ba faay maanaam euh, matal kóllëre yi day day day jafe. Uh-huh. kenn du matal kóllëre war gi daa bëri lool ci jamono ji war gi daa bëri. Uh-huh. daanaka nit ñi dañuy néew li ñu matal matal kóllëre alxuraan dafa ne waaw foofu bi la aad. inna al aada kaana masuula mooy na ngeen matal kóllëre yi mhm. ndax kóllëre ëllëg dañ koy laaj ah dañ koy laaj dañ koy laaj suñu borom da koy laaj nit ku nekk yàlla daan la teg laaj la uh-huh. ndax yaa ngi daan matal kóllëre uh-huh. mu teg cee wa xillatil xayaa yi fi niswaani wa xillatil xayaa yi fi sibyaani nee na jigéen ñi dañu nekk uh-huh. ñu néew kersa lool waaw dëgg la kersa gi day xaw a néew ci ñoom lool buñ toolee ci jamono jooju nañ tiit te xam ne ah ñu ci aaxur siman waaye gone it gis nga boo génnee ci mbedd mi emprunté yeeg ñëpp ñi a ko sañ wax ñëpp sama mhm. classe yi a xam ne mhm. bu njëkk gone da daan dañ ko yar ba ne bu mhm. gisee moroomu baayam da koy jox cëru baay a doon ak melokaan a gisee euh, koy wàccuwaay bi mu jox la koy jox bu gisee ku mu mag a koy yërëm comme ni mu yërëmee rakkam maanaam façon valeur yooyu ak jikko yu baax yi nga xam ne société bi da ko amoon yëpp dafa tàmbalee sànku léegi ñëpp gën a ñoo gën a euh, ñàkk kersa ñëpp waaw mhm. ah, mag mu wax yow ñu sànni la loxo ak ak yu mel la 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 Oustaz ñàkk kersa gi mhm. ci lan ci waxin gi ci colin gi damaa dégg sànq ba da wax ñàkk ci gone yi mhm. ci colin gi moom ñëwoo ci yàlla yaakaar <laughs> ndax euh, jamono ji <laughs> dana waar ah, ah, waaw ñàkk kersa gi moom euh, ci colin gi dañ cee ñàkk kersa loolu yëpp saa saa mi nga xam ne mujj jamono dañuy gis ko ku solu ba pare rafle mhm, mhm. jàpp ne sol maam ku sol lu riis mhm. ba noppi rafle mooy lan mooy yow mën ngaa jënd jasneer boo xam ba pare da ngay rafle mooy lu ëpp sa cër mi ci biti te loolu bokk na ci li provoqué ak mbon kon jigéen ñi nañ gën a defaraat euh, gën a jekkalaat euh, maanaam xam naa ne yéen moom ni ma li ma ci naqaari suñu soxna yëpp da ngeen defi meer ah déedéet déedéet loolu loolu islam mooy loolu lislaam moo ko damaa jàngut 88 <laughs> la 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 ngeen ma baal ma ne damaa mën a tooñ 88 la 628 19 05 mbaa 88 628 81 08 Oustaz yaa ngoon ci col gi lu suñu borom wax yéen saa sam xulli aswaajik mhm. aswaajik aswaajik soxna si yéen saa sam suñu ndey lan mhm. ñooy suñu ndey ñoom mhm. xulli aswaajik wa banaatik ak say doom doom yéen ñooy gën foofu wani saayil moom yi ak julit ñëpp nag jigéen ñi julit ñëpp ah yàlla dafa njëkk woon ci soxnaam soxnaam yi teg ci doom yi doom doo ci teg jullit ñi ndeysaan ak a maandu li aswaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna daa maandu rek waaye moo ay yëre yu jot daa maandu waaye mën na ko wax jullit ne xam ne doomi ah. yonent yeeg soxna yi ah. hmm, maandu la def masha Allah ah. daa tàng amul bu ma ko muuroo tàngoor bi may sonal gis nga yàlla li mu santaane moom wàcc ko rek moo gën ndax boo ko wàcc te sa loraange dong la te li mu la digal ak lu mu metti metti def ko moo gën boo ko defut lim la lim la digal boo ko deful mhm. sa loraange la mhm. boo ko defee mhm. sa njëriñ sa njëriñ la kon ñu ñu àggale kon ci gii bi a teg a waqilatil axyaari wal abraari nee na tànnee fi dañuy néew lool xam naa mooy li Sëriñ Fallu Mbàkke doon wax naan waliyu yàlla yi moom ñu ci asamaan si waaye bëgg a wàcc lool waaye eh, jigéen ju jigéen ju baax juñ a wa xillatul axyaari ak kàccoor gi mhm. tasaaroo day bari lool mhm. waaw maanaam neewaa da gis nit koo xam ne euh, li muy wane ci kaw nii moo nekk ca biiram moo ci xolam mhm. waaw wane gi muy wane ne daa bëgg daa bëgg lu baax wana wala wane gi waaye colin gi muy col ci kaw ak ak bi am ci kaw daal wuute naag dana ci biir ni fàq maanaam loolu mooy ni fàq fujjaar gi kàccoore gi day bari lool ci jamono ji ba tey jamono ji ba tey te alxuraan nee na wa inna al fujjaara la fii jaxin mhm. ku fi jaar moom baaxul mhm. lan mooy ah? sas xam naa ne man moom bala ma bala ma laa bàyyi <laughs> jaxim mooy lan lan mooy jaxim waaw ah, jaxim de benn sawar la ci sawar la xam nga sawar moom daa xaw a bëri ah. kon sawar ay appartement appartement la appartement la man na huit appartement daa xaw a ni nga xamee ne àjjana la mhm. xam nga boo ñëwee ci hôtel bi masalan ci ci àdduna rek hôtel bi eh, gis hôtel yoo xam ne R plus 4 yi R plus 8 yi R plus 14 hôtel yi ay niveau la a bakkane gis a bakkane da jaxim de xanaa kon bokk na ci appartement yi gën bakkane dama ne naa ñu tënk daa mel ni ñu joxoon ci waxtu lay bëgg a jeex ndax Seyda boobu ba léegi mi ngi mi ngi mi ngi signalé rek xam naa ñu daal di tënk te daal di tàggatoo tàggatoo bu dul tàggoo xam naa ne jaxim moom buñu dikkaatee war nañu ko leeral li ngeen ko tudd bari na mel mu teg ca taazimu zimalin wa taqiirul alim taqdimu jahilin wa taqiirul alim nee na dañuy màggal borom alal dañuy jël borom alal daa koy favoriser a kaw a kaw waaye jël ki nga xam ne borom xam-xam la ñu ginnaawal daa koy sànni fële da yow moom xamoo dara waaw loolu wax fi rek moom boo xoolee da koy gis réalité la boo nekkee borom alal doom te at yi néew nga am moom kër gi moom yaay seef waaw loo loo loo loo joxañ rek ñu kon nee na ki nga xam ne ab jaahil la xamul dara ne na moom la ñuy jël jiital ko teg ko teg ko ci kanam mhm. nee na mooy yàq rek jaahil mhm. moom bu jiitoo li ko teg ci mhm. waaye xool ki xam xam la nga xam ne bu ko jiitaloon naa defar bu ñu ko jiitaloon lépp mën naa jàkk ñu tardel ko ñu yeexoo daa koy daa koy daa koy teg ne mu ne hasa samaanu zamanu sukkooti kon lii jar nañ bàyyi xel bu baax a baax ah. nee na jamono jii kon 88 628 19 05 mbaa nee na haza zamanu haza zamanu zamanu sukkooti wa zamanu luzoomi lil bu yóoti taxal foofu baax a baax nee na jamono jii jamonoy noppi la jamono jii jamono jii nekk toog sa ruq la nekk lijjanti sa bopp di góorgóorlu ci say ci sa ci say ci say ci saw yiw yoom saw yiw yow di xool say rëcc-rëcc nga di ko jégalu yàlla di ko di ko tuub te jéem a yittewoo sa bopp ndax yàqu-yàqu gi kenn mënu ko defar te kanam kenn mënu ko defar te kanam la jëm kon yow na nga yittewoo sa jëmmi bopp yam mhm. yéen saa sam nee na xaasibu anfusakum xabla an tuxaasabu mhm. na ngeen di xisaab seen bopp njëkk ñu leen di xisaab mhm, xam naa oustaz waaw xaasa boobu moom bay ba ñu daal di koy denc rek ndax xam naa Seyda Seyda mi ngi nii taxaw ci man mel na doy na waar xam naa kon sax dañuy tàggatoo <laughs> ah. wax dëgg yàlla lii euh, du sin ndab ci cin li comme ni ko olof di waxee kon xam naa ñu tàggatoo rek tàggatoo duñ ci tàggoo xam naa oustaz euh, sa kàddu gu mujj waaw ah, ndeysaan ñi ngi rafet eh, émission bi yataa bi mhm. di la sant bu baax baax ci dalal gi ñu dalal mhm. da ngaa baax rek wax dëgg yàlla ndax yii ngay laaj yëpp yaa ngi ci ëpp xam-xam déet ëpp naa def jàng ba jàng pare nga déet déet eh, <laughs> baal maa gën a rek <laughs> nga nekk di joxewaat xam-xam nekk ci école di jàngale wax dëgg yàlla mhm. kooku professeur bu mag la. ëpp naa def yàlla. Mhm. xam daal ñi ngi ñu di dogal ngant ñi xam ne ñi ngi ñuy diglu. Mhm. te xam-xam foofu. Mhm. gën a ñu dara leen ci barab bii. xëy na ñun dañoo réew laam mi wax waaye dara xamuñu ko. ñu leen dogal ngant bu baax a a di sant bu baax a baax maa ngi nuyoo sama waajur. góor Serigne euh, Baye Serigne Silla. sama waajur wu jigéen soxna xali Gajaga mhm. ak di nuyu waa kër gi yëpp ak soxna ab safar ak Cheikh Ibrahima si sax xam naa ne yow sun sun suñ génnee fii <laughs> danañ taxaw daa ne buñ ñu dàqee ñoo bokk ñibbi waaw ah, yow yow waaw <laughs> jaamia bi mu nekk jaamia si Ahmadou Xadim euh, ñi ma bokkal uh-huh. ñëpp wax dëgg yàlla di a baax di nuyu ñëpp daal uh-huh. euh, am na amoon nañ yéene gën gën koo yaatal baax a baax uh-huh. xëy na dañ xaw a détaillé ci yenn kii xaalis ak yéen waaye axir safaan moom wax dëgg yàlla sëñ bi wax na ci bare bare yoo xam ne moom danañ ñëwaat incha allah yàlla incha allah ñu ngi koy dund kon ñu ngi taxawal foofu rek uridu islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu masha allah euh, oustaz Badara Sylla ci leeral bu am solo boobu noonu oustaz daa mel ne li ma ko déggee xam naa ne buñ dàqee danañ ñibbi foofu noonu waaye tarkaal la ñu ngi ziar ñëpp ke xam ne yaa doon bàyyi xel émission euh, di wax ne moom nii rek lay demee incha allahu taala la ñu ñor daal mooy waxtaane yenn ci diine waaye di dalal yenn ci sëriñ daara yi euh, ak euh, yenn ci borom xam-xam yi kon ñi ngi ziar alaaji fàllu la grand célibataire xam naa bu ci jugee rek ci kàttan yàlla dana xaw a tegg sama tànk ci sëriñ daara yi waaye di ziare sëñ daam silla borom bis bu mag boobu la treize incha allah ñu koy ziare bu a baax waaye di ziare abdou hakim ka moom di seet ki xam ne yaa ngi doon bàyyi xel wasalaamaaleykum wa rahmatul aha aha wax ji moom ñu ngi koy jox waa jàmm baax waa di ko di ko siyaar macha allah aha jaajëf aha aha ayo allo am naa waxtu bi jeex na sax waaye na jox waa rand salaamaaleykum Eh, man a xam naa ne temps bi jeex waaye kañ la kañ la war a dellusiwaat kañ la war a dellusiwaat. kañ la war a dellusiwaat waaw incha allah xam naa da nga dellu seet naa Ousmane. ndax ndax ndax ndax ndax nit ñi soxla ñaa ngi teewlu. ndaw ñaa ngi teewlu. xam da nga dellusiwaat du yàgg dara incha allah. incha allah moom na joxe rendez-vous rek di ko xel. xam naa Oustaz bu fekkee dana jàppandi. xam naa ne su waxee dana sàmm kàddu. ndeysaan xam naa oustaz kon daa mel ne gars yi ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanaat ba boo ñu jéem ko waajalaat rek incha allahu ko waajalaat rek bu leen incha allah di ngeen jàppaat bis rek incha allahu taala bis bu leen jàppaat rek ci kàttan yàlla incha allahu taala kon xam naa dana fan yi rek incha allahu taala dana dana ci ñëwaat euh, oustaz Badara Sylla ci waxtaanu solo oustaz xam naa ne baaru baaru sëñ Fall dalay dalay dalay kii yal <laughs> rek tarkalla ay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi tuub tey jégalu baax